na ma ko defoon place Atou bu Junior fële ca Parcelles Assainies Cité Fadia tey noonu lañ koy defaatee ñëw fii ci marché bu bees seet fi xale boo xamante ne vraiment mu ngi góorgóorlu tey it wax dëgg lépp loo xamante ne mbër am na ko rek sagu Wassare Lamb la. <laughs> champion bi. Mbaytin naka la. ñii maa ngi lay siyaar waaw ñu ngi lay siyaar bu baax a baax. waaw alhamdulilah waa jiili sant bu baax. Mbaytin. waa jiili bëgg naa la. Ah, sama xarit waa gis maa ngi sa gannaaw maa ngi sa maa ngi sa siyaar. waaw waaw delloo siyaar. bu baax kay. kan la ma tëral bu Saalum la. doomu Saalum waaw kër gaa ngi nii de. kër gaa ngi nii waaw. mbaytin bërëb baa ngi nii de. ah. macha allah. ah lii de moom xéwal la moom. vraiment place mbaytin a ngi noonu. ah mbaytin lii moom. macha allah moom. ah mbër. waa gis nga jiili xam nga rek. moom taaru na de. waa gis nga sant yàlla rek comme daal lamb ji instant bii nii mooy loolu. waa waa njéem am fu ñu jàpp rek ba keroog lamb ji ubbi. non faw nga simmeeku ma xool état bi ñu toog gën a mën a waxtaan waxtaan. tey see la xaaral ma simmeeku yow sama waay nga. yow jii loo bëgg yàlla nay jàmm. waaw mu doon. non jii loo bëgg yàlla nay jàmm jii yow yow yow jii sama waay nga. war na Serigne Touba. Ah. moom gaan sama doom ndey sama xarit nga. waa jii la waa di wax yi rek ni xam nga waa ñu ñëw ñu jàpp si affaire yi ndax ñun géejuwaay lañ am ñun dërët géejuwaay mooy daw suñu yaram géejuwaay la ñu tiitaroo lépp lu ñu am géejuwaay lañ koy indi Ah, kon boo gisee lii xam nga bëgg tamit géejawaay xam nga mooy loolu quoi booy di lu mol di sañse muy mbër yeeg supporter yeeg amateur muy ñëpp waaw ñëw fii di jën si yére lu mool waaw ndax mbay din du seer mbay din si ka plateau lay dugg ay bagaat turki waaw moom la laal ñëw fii di ko si def jaay boy waa waaw fii bagage cooma nekku fi de jii lii yaa ngi gis yaa ngi gis bagage yi. toog waxtaan yaatal ko ba mu yaatu. waaw waaw gis nga ñu yaatal mooy loolu. waaw rang <laughs> euh, mbokk yi comme ni ma leen ko waxee ci biti ñëw nañ ci bërëb boo xamante ni bërëb mbër la ndax ku tudd mbaytin Tine xam ne champion la boo xamante ni maa ngi fàttaliku journée ba keroog stade Diop Iba Mar Diop ci diggante moom ak daam su Sungeer numéro 2 nga gis ci moom lépp champion boo xamante ni macha allah mu ngi ci moom ñun nag yàlla dañoo baaxee teraanga boo xamante ni mbër am na ko rek dañ ci kontaan. parce que saa su ne rek ngay dégg suñu papa père Birahim Ndiaye naan làmb kese du métier waaye bu ñu gisee mbër moo xamante ni yaakaar nañ ko ci làmb mu boole làmb ak beneen métier boo xamante ne ñaan nañ yàlla suñu borom fépp fu nit di ci am teraanga rek mu am ko ci kon tey dañuy waxtaan bu baax a baax a baax mbaytin ma lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet wasaare làmb yi di la jaajëfalaat bu baax a baax a baax. waaye jii maa lay fay ginnaaw yàlla waa julli si yoon bi maa ngi ñaari waajur waa di sant sama ñaari waajur waa di sant sama papa di gërëm sama yaay. ndax man ñoom laa fi am quoi ñoom ñoo ndax man ñoom sama sëriñ. ñoo may dooleel ñoo may ñaanal barki si alxuraan. maa ngi sant sama gaay yëpp ki si mel ni ala ki nga xamante ni moo ma yar. waaw lépp lu nekk si man moo ko def si man maa ngay sant bu baax grand bu ñàkk ñaan la. Mm-hmm. maa ngi sant sama grand bi Ndaama moom tamit xam nga yàgg na maa conseil di ma jàppale. waaw di sant sama boy bi matériel bu Saloum jili kii champion la. Mm-hmm. barki Serigne Mbama lii nii. buñ ko amee yàlla man ak moom la quoi. Mm-hmm. ndax tey jii man maa fee ne euh, Colobane place. ko muy liggéey ma ne si samay entraînement yi samay dégg xam xam waa xooluma ci dara na moom mbër la bu ko neexoon ne kat mbër mi ko dafa bëgg lu yomb wala dara. Mm-hmm. maa ngi koy bu baax dëgg yàlla jàmbaar la. Mm-hmm. champion la ku ma dëggal la. Mm-hmm. dëgg yàlla di ñaan nag xam nga yàlla may ñu ay yeneen magasin. budul yii quoi waaw. doo sant dab daan parce que ci avance dab daan xam naa ni ci dab daan da ngaa jóge ci da ngaa laal avance dab daan rek yàlla suñ boro ubbi yeneen bunt daa mel war nga koo sant. non dab daan non dab daan ma ji la man nag. ubbi ko nag ubbi la ko non dab daan man la war a sant. ci ci avance contrat nga nekk yaa dab daan am place bu bees. doo sant dab daan waaw dab daan man la war a sant wul ndax. ndax dab daan kenn xamagoon ci làmb. dab daan doo dugg site internet bi nu turam xamu mu génn. billaay wala bi génn dab daan man la mësa billaay ma la xam ma la xama ma lu ko war a bëreel isaamba dégg si internet yi xama di ko seet si xama xama xama boo duggee YouTube bind turam muy soog a ñëw dab daan ma la war a sant jiili léegi yow suñu waxtaanee mbokk internet yi ñu ngi ñooy seetaan sa diggante yàlla avance bi nga jël yaa dab daan fukki dërëm duggul ci ci place bi non avance boobu matul dara lay dégg avance boobu noonu jiili barke sëñ Ba matul dara waaw mais fukki dërëm fukki dërëm duggul ci place fikki dërëm dugg si. lii yëpp maa ko ñàkk man. mais làmb xaalis làmb. non xaasul déedéet yàlla moo xam ne lii xaalis làmb dugg si. jiili ma lii maa ko ñàkk. waa Colobane jàppale ma. Mhm. ak waa Petersen. Mhm. ndax man Petersen laa débuté. Mhm. di wanteer. heure su ma may combat yi di ma jàppale isa may dégg. après ma dem fee Colobane ut fa place di dóor place boobu nag moo may lii tay Colobane dëgg yàlla. ku dee. ak sa bàmmeel Colobane moom may lii waa mais du làmb sama liggéey moom ko may waaw. Euh, lan ngay wax sa morom yu mbëri yi ndax dem naa ci place Atou Junior gis ko moom it mu nekk xale yor place bërëb bu mel nii macha allah mu ngi ciy gis boppam tey yow it euh, nga ñëwaat ci li nga xamante ni mooy place boo xamante ni surtout fi nga dëkk. Euh, li wolof naan foo dem fekk fa mbaax loo am ci mbaax foofu nga koy yóbbu mel ni na mbaax gi nga am wala teraanga bi nga xamante ne suñu borom baaxe na la ko indi nga ko biir géejawaay. waaw ma kii jiile mhm. sànq rek sa benn ngaan mu ma koy wax ndeysaan nan ma xam naa ne mbëy da ngaa def lu garaaw. Mhm. ma ne ko man damaa xam quoi gars yi dañuy euh, xam nga dañuy war a dem jënd yére. Mhm. di paas di dem fii ba Dakar. xam nga ba ay Colobane ay Thiaroye fu ne. waaw ah, man nag suma yàlla mayee fii incha allah place. xam nga dinaa fi dafay bagage yu baax. waa yu mol yoo xamante ne nii xam nga gars dootuñu dem fenn jiili wasaare. Mhm. waaw di wax na sama mbokku mbër yi làmb da nga koy booleeg métier quoi. Mhm. waaw waaw moom dëgg yàlla du métier. xam nga ndax làmb jaa ngi ni sooxee. Mhm. xam nga gars yi gën ñëw bëre. jiili tey jii su ma mun liggéey fa laa jëm. xam nga te maa ngi ni lekk avance. surtout nga nekk xale am ñoo xamante ne yaa ngi leen di bëgg a teral macha allah am kattan. waroon mën a def leneen defoo ko nga nga jàpp ni liggéey rek mooy maye teraanga. Mm-hmm. waaw waaw loolu dëgg la ji loolu dëgg yàlla man moom. heure daaw rek ba ma bëreeg Dame Suguer numéro 2 xam fa laa campagne. Mm. Tamba jaay ji. barki yonenti yàlla Muhammad daa heure bii Tamba la fekk may jaay. Mm. ala mi duma bàyyi ma fenn. billaahi wallaahi. Mm. war na Serigne Touba man moom Lambo. dama koy boole liggéey quoi. heure su ma amul combat maa ngi sama waar di ko boole samay entraînement. heure su ma lekkee avance ma leen làmb ji des na ay deux mois nag mu mun a toog xam mën a préparer sama combat xam ma concentré aussi. Mm. waa léegi nag bu jàllee ma delluwaat waar bi di booleeg samay entraînement. Mm. waaw man moom noonu laay joobee ko quoi. Mm. Euh, corona bi dafa dugg si ma gis mbaytin sa diggante yaag dab daan keroog jàkkaarloo bi ma ñëwoon ma gis beneen état de forme boo xamante ne xale bi yor na ko lan la sa diggante yaag euh, Dame Souguer numéro 2 état bi nga indi woon dafa baaxul. nga daan ko ci jàpp ne état bi baaxul wala dab daan moo laaj nga yokk poids bi. non làmb moo laaj ma yokk poids bi waa nekkul dab daan de ndax tey jii man dama war a bëreeg dab daan daan ko bëreeg samay mag si làmb. dab daan meen. la dëggee numéro ku mu bëreel nga xam ne kii dafa weex. la ni ma 2 gis ma xool ma ne ma yow xam mun ngaa lekk lu na ci làmb xam nga comme sa masse bi danga ko war a yokk def ko doole liin nii yëpp moom la ji li du la man waaw mooy loolu quoi. mais Lac de Guiers 2 barki yonentu yàlla Muhammad li yëpp moom la moom mooy yóbbu saal di ma fayal di ma jox protéine di ma jox ay vitamine may naan may entraîner bu baax di ànd ak moom matin ak soir isa may dégg en même di may xama xam ma xama di ma jàppale di ma conseil ci lu bari jili mais dab daan moom billaay wallaay bu arbu ne pirip dina xam li ma liggéey du pour moom jili non jili jili corona bi daa waroon gaaw jeex rek kon heure bi ma tàqu jili maa moom bu am ne biir ñu jëflante billaahi wala du ma ko may dara fu mu nekk ma fekko fa li may seetlu mooy dafa mel ni xamoo dab daan wala da nga koo xeeb ci masse bi mu yor masse musculaire bi mu yor dafa mel ni Mbaye Tine da ko xeeb trop non jilu xew ma ko de ni ngay waxee da ko xeeb bu arbitre ne prime ma jëflante woo nga ma fi ñu waxtaan man a yow nga ne ma bu ma ko wul ba ci kaw dóor ci suuf daan ma ko maanaam jil dab daan dafa bëri wax daf may woo téléphone moom si boppam. barki Serigne Bamba. xam nga ñoo bokk groupe daf may woo téléphone di ma lu ne ak gaynde mi <laughs> benn booy bu muy àndal. xam man leen <laughs> non di ma woo naanoo mbéytin ba xam yaay waaja man leen liggéey leen <laughs> man leen liggéey leen man ma leen liggéey leen yéen def nii daanu ma. waaw man mooy loolu bu wóor moo may daan mais du ay musique ay texel non non. Hmm. waaw. waa jëli wi waa lu koy def du xaalis. ah man commerçant ñu ngi may jàppale nam ma dara su ma bëggee dem voyage ka Casamance léegi leen sa benn commerçant laay woo ña ko suba dama dem voyage mu jox ma lu bari ma dem barke seriñ Bamba dab daan damaa bëgg mu dal jàmm waaw ah, xam ni am na combat Caar Yora da ko Caar Yora moo ko mujjee daan si defar lay delluwaat incha allah man béykat maa la ko jiili Ah, baax na comme yeggaguñ ca moom nañ ñëwaat tuuti ci place bi euh, ma gis fi ay bagages yoo xamante ne vraiment ay bagages yu rafet la gis naa fi ay t-shirt gis naa fi ay Lacoste gis naa fi ay jiin gis naa fi ay pil gis naa fi lu bare bare bare bare loolu bi nga koy maam bi ñu ciy dugg lan moo la ci dugal ak fan nga séentu nii place bi jot na kat ma am place géejawaay bi nga xamante ni fa laa bi nag dama ciy sant sam benn gars bu nan Malick waaw moom moo fi nekkoon quoi di ma jaay bagage léegi yàlla def magam bu góor daal koy ubbil euh, magasin fële caaro yi mm. après mu jaay ma place bi doxaale ma yu bëri fii nii. Mm. waaw mais nag lii moom dama doon toog di ko ñaan quoi mm. ndax man am na événement bi paase fii laa jaayee ma ne fii nii kat naa fee mën am place. di ko ñaan booy bi ba ma woowee ne ma mbër kaa ma jox la place bi dama ni alhamdulilah rabbil alamin mais loolu dara. ndax nit moom lépp lu war am rek sa xama sa dund danga am waa xëy na yàlla moo noonu place bi sama loxo lay jaar kenn mënu si dara am na ñu am ñoo xam yàgg nañ ci marché bi def nañ ci marché bi ay 10 ans mënu ñoom place kon man su ma ñëwee yàlla ma yem sant yàlla saa may dégg waaw di gërëm sama ndey di so waa di sant sama papa bu baax na ñoom la ko waa ñoom ñoo may ñaanal di ma dooleel waaw ñoom la ko waa gis nga bagage yi nii ay bagage yu baax fi ne ay bagage turki moo fi ne. Mhm. waaw ay bagage turki moo fi ne bagage yu jugee ay Sika Plateau. Mhm. El Malick waaw sama supporters yi nekk foofu ñoom ñoo may jaay bagage yi yëpp. waaw jili muy mbër yi muy promoteurs yi xaw muy journalistes yi képp ku ñëw fii dama lay sanseel ku bëgg lu baax mu ñëw place Mbaye Tine. ku bëgg lu baax ñëwul fii sama place place Mbaye Tine Junior dab daan dama koy daan bara sanseel ko. <laughs> xanaa neex. <laughs> loolu dina garaaw. Eh, eh, eh, sëñ Bas. dab daan yow laay waxal dama lay daan boo ñëwee fii xoolal ma sànce lu rëy. incha allahu rabbi neen mbër yi ñu ñëw. yëre yi yëre yu naturel la amul mystique amul dara yëre la xale la boo xamante ni ci làmb la nekk bokk ak ñoom ñu war a jàppalante parce que mbër yi des fois tam ñu la ay mbër yëre baytin ku ko sol dana yëru fa ci kaw dóor ci suuf. <laughs> jiili. wuy ma cadre làmb cadre làmb la. mais lii cadre liggéey la. isaan bay dégg. lii nii cadre liggéey yooyu noonu xam nga defuñu ko fi sax. damaa bëgg mbër yi ñëw mbër yi ñëw. làmb mbër yi yaa mbër yi nañ ñëw. supporters yi tamit di ñëw amateurs yi di ñëw promoteur di ñëw. làmb nag fële làmb la bu jeexee jeex na. man jiiri làmb la làmb la daam su rek ni bëri nañ. xam nga keroog xam na ma ko seeti ba léegi ñu ngi déggante téléphone. loolu dara làmb la nag bu jeexee jeex na. mais liggéey liggéey la. waaw di wax gars na ñëw jàpp si bagage bi. waaw di si woo ñëpp nag mbëri géej waaye ñu jàpp si. ki si mel ni ñoom Balla Gaye 2. Lac de Guiers numéro Alioune Seye 2 xam ay guy gi. xam nga ñun samay mbokk lañ ko waa samay xarit lañ. waaw ñëw jàpp si place dooleel ma waaw. Euh, ci sant yooyu laay ñëw tuuti parce que da nga tudd Alioune Seye 2 tudd guy gi euh, te dafa am loo xamante ne actualité la àdduna bépp ñu ngi koy wax ci diggante géejawaay mbëru géejawaay coow yi nga xamante ne mu ngi judd ci seen biir barki démb gis ngeen émission confrontation bi amoon diggante guy gi. liiru Diane ak abdu Diouf coow jot fa am ba émission bi mujjeewul yegg en tant que mbër doon doomu géejawaay bi nga ko gisee lan nga yëg. non loolu moom seraan na ko quoi mais mais wax dëgg yàlla xam nga mooy la ko rafetlu ma ko quoi ndax loolu du yoon ndax ñoom ñoo bokk géejawaay bi Abdou Diouf ak guy gi ñoo bokk benn koñ. ñoom ñaar ñoo fowandoo barke démb roon mi ngi koy wax saa may dégg barke démb roon rek mi ngi koy wax xam nga roon mi ngi naan yaay liiru moo yor Abdou Diouf. xama comme ñoom ñaar xama dara waru dégg xama xama ko ñoom ñaar waaw war a waaw dara waru xama dox seen diggante mm-hmm. isa may dégg ndax ñoo bokk géej waaye guy gi tamit waxi noonu mm-hmm. xam la mais demba élhage ma la su waaye xama nax xama nax benn nit xama di jéem a noonante mm-hmm. xama loolu du yoon quoi nax lan alal àdduna xama ñoom ñëpp ñoo far làmb la waaw moo géej tamit borom baax la dëgg yàlla mi ngi jàppale mbaru géej waay waaw mi ngi xama mi ngi jàppale ñëpp mais loolu moom dëgg yàlla jiili xool man moom seeraan naa ko quoi mais bu ma ko seeraanee xam na maa déplané ko mais heure rek xam na heure la rek mais liiru borom baax la Abdou Diouf borom baax la guy gi borom baax la wax dëgg yàlla moom ñoom ñëpp ay borom baax lañ samay garant lañ waaw xëy na heure la rek waaw mais incha allah bu ñëwee rek xama nga gars yi waxtaanaat waaw est-ce que ñoom ñooñu seen diggante dina war mel ni mu war a mel parce que ay xale yoo xamante ni dañuy topp seen ginnaaw ku ci nekk ay xale ngi topp ci ginnaawam que ça muy Lirou que ça soit muy Abdou juuf wala muy Guy gi ñoom ñooñu ñëpp ay ay kilifa lañ yoo xamante ni tey est-ce que séntu woon nañ leen ci làmb foofu ñu dem ba benn dëkk ku ci nekk war a défendre dëkk bi nga xamante ni moom nga dëkk rawatina yor drapeau Sénégal ñuy am ay détails yoo xam ne ñoom ay doomu réew mi ñoo ñoo ñoo ñoo judd ci loolu. Mm-hmm. waa loolu moom du yoon jiili wax dëgg yàlla moom war waruñoo jóge fii dem ba États-Unis xam nga di fa noonoo ma loolu d'accord moo ko ndax ñoo bokk Sénégal bokk benn géejawaay bokk bokk fenn fu ñuy yewoo waaw mais loolu moom dëgg yàlla ma rafetalu ma ko quoi waaw dëgg yàlla moom du yoon mais waaw xëy na ñàkk waxtaan ak moom mais réeroo amul ndax liiru moom borom baax la liiru moom moom comédien moom day nekk fii ma la sumbaay mooy loolu. booy li nga sama musiba de. comédien boobu de dalaa rëcc <laughs> liiru jaan bu li maa waaye nga di comédien <laughs> liiru boobu dalaa baal ngay <laughs> ah, liiru liiru sama doomu ndey la ah, liiru eh. yow liiru sama waay nga ah, non liiru comédien rek liiru comédien ma dugal ma dugal jili liiru liiru du comédien liiru eh. doomu ndey moo géej la Abdou Diouf doomu ndey moo géej gu gi tam waxi noppi ñoom ñëpp ñoo far quoi man jaru ay waaw ku nekk li nga war a am su moo géet Issa Amady bu soobee suñu borom xam nga da nga ko fi am mais jarul yéen ñii eh, kii eh, jiili barke Serigne Ba ñoom ñoo far. billaahi. mais programme bi lu tax ay Balla Gaye la dëggee de demuñu lu tax. dara xam nga instant yii instant la dëggee de daa am si kii si contrat dafa ne si xam nga war a bëri combat bu rëy moo ko am seen combat capital. Samba Xoyaan bi Demba Ngom ak Demba Ngor. jiili ñun combat man fi mu ne. dem ba far maa jigéen maag dab daan sax. ma seen man yàqab naa bëreeg dab daan ba ñu xam ba ñu waajal combat bële le 4 avril. di bëre ñetti yoon. waaw ñaari yoon mu daal la benn. ñett waa ñaari yoon mu daal la benn ngeen niil benn ngeen war a bëre seen troisième combat. waaw ñu war a waa suñu troisième combat. Eumeu ma koy wax chaque jour rek na waaj lu mu waaj doyul. Eumeu Sène. wala war a yow xale bu ndaw yaa war a wax Eumeu Sène waajal. Eumeu na waaj lu mu waaj doyul ndax ñun combat bi ñun booy ñun ñoo ko jël au ñun. waaw ñun doomu Lac de Guiers ñoo ko jël au sérieux te bu jour ba Eumeu Sène dina doyal sëkk maa la ko wax man Mbaye Tine waaw. ci lan bëre xeex. ci bëre lépp. lépp làmb la rek en tout cas combat bi daal ñun ñoo jaral ndax tey jii ñun daa am fu ñu a dem ci làmb Lac de Guiers ji moo fi gën a néew defet ji li mbër mu gën a naqaree daan ci làmb mooy Lac de Guiers de mooy ñëw doo ko mos ëpp doole. waaw hmm. waaw mbër mu naqaree daan ci làmb mooy Lac de liggéey kon kooku roi des arènes da ko war a téye waaw ah, ñu dañoo war a téye roi bi ko nii mu yàgg suñu loolu jili waaw. Ah, loolu de neex la bëgg neex na ci non ñun loolu lañ bëgg dañ ko war a téye te incha bu ko mbër téye moom du yomb de pour nga jël ko ci moom du yomb de ku koy jël li nga liggéey de. léegi damaa bëggoon nga defal ma jaay mbar ma jug nga wan ma bagage yi bu ci nekk nga wax ma prix ñu waxaale ma jënd wala ñu waxaale ma bañ a jënd rek ndax looloo am ci réew mi. ndeysaan yedd moom mbaytin sëñ Bas pare nga lii lan la jili jili waaw lii ay tubay blouson la tubay blouson big size yi waaw bii bii dafa rafet bii lii tubay blouson big size la mhm. ay gis ndeysaan lii mun na lu ne mun na dem états mun na seede Macky Sall mun na lu ne mu ngi ni te prix bu yomb laa koy jaay junni bàyyi li nga wax barke Serigne junni jiili man damay wante <laughs> jiili man damay wante yow jaayoo da junni laa koy jaayee junni ndeysaan sorti yi ngay gis ni mhm. sorti yi juróomi téeméer laa koy jaayee juróomi téeméer deux mille cent lii juróomi téeméer xam nga rek ñun preseen lañ màggee yaroo ak Colobane macha allah waaw bagage yu baax lañ yor meeru seer xoolal body yi waaw ak chemise yi yaa ngi chemise yi waaw yii nii yëpp ci lii bët yi ak yii nii yëpp collant yi xool collant la waaw yi ay collant ji lii mun na lu ne yi mun na lu ne ji li barki Serigne Bamba waaw mooy loolu ak lakos yi lakos toog noonu waaw lakos yi tamit mooy loolu seerul yëpp seerul ji li wanteer la rek waaw ñun moom ay Baye Fall lañ ndax dëkk bi daa dëgër am la mm. ku ñëw dañ ciy jàpp rek mm. waaw mooy loolu yombal ko ko ba mu yomb waaw yombal ko ko ba mu yomb waaw ñu jàpp si xam nga ñu xamuñu mooy loo ñu mun a sañse waaw ndax fii géejawaay xam a gars yi sañse lañ gëm waaw sol lu mool génn takk dàll yi ndaa maa ngi nii sama doom yaay sama xarit moo loolu tey moo ma soqi hmm. waaw jën si man lu bari waaw ndaama waaw waaw mooy loo ko bilaa ñoo na mbëréew samp yokk dañ ciy jàpp waaw ñëw jën lu bari kii borom baax la bilaahi Mbaye Tine numéro 2 ay ca ñu toog mbokk yi gis ngeen mbokk yi gis ngeen li nga xamante ni doomi réew mi doomi géejawaay njabootu làmb def nañ ko ñu dem seet si ki nga xamante ni mooy mbaytin numéro 2 ci place bu bees bi nga xamante ni ubbi na ko ci marché njaareem marché bu bees mu doon koo xamante ni vraiment boo ñëwee rek tout droit ngay def ba ci pàq saret yi boo ñëwee foofu place bi macha allah boo ne place bi mbaytin rek da ngay xam ni macha allah xale bi jàmbaar la mu doon loo xamante ni képp kuy njabootu làmb jàpp ci képp koo xamante ni doomu géejawaay nga place bi sa place la maa lay ñaan nga ñëw jàpp ci jàpp ci moo xam muy Balla Gaye 2 ñëwal fii xale bi jaay la ay sañse nga sañse honneur la nga toog ci tele ne li ma sol de doomu géejawaay moo ma ko jaay muy mbaytin numéro 2 Lac de Guiers 2 noonu Alioune Seye numéro 2 noonu guy gi képp koo xamante ne champion nga rek ñu lay jaan nga ñëw fii jàppale xale bi nga xamante ni mooy Mbaye Tine numéro 2 ma lay jëfalaat bu baax a baax di la tàggu. waaw Djily maa ngi lay sant di la gërëm maa ngi lay sant bu baax na yow da baax yow Djily yow da nga maa bëgg. bilaay walaay mais maa ngi lay ñaanal rek yaa xam loo bëgg ci àdduna waaw na ko yàlla defal. bilaay walaay sa si bii nii yàlla xam nga yàlla dem ba doon ay télé yu mag si biir réew mi. ndax yow xam mérito nga lu ne jiili yow da ngaa baax dafa rafet jiili maa sant ñëpp di gërëm waa géej waay gépp ikri yëpp mbër yëpp maa ngi sant waa kolobaan commerçant yi ñoo bëgg jiili man barki Serigne mbamba dama am combat ñu may doole di ma jàppale ba si bagage yi nii yëpp su ma demee xooloon ay prix yomb lañ may wax billaahi wallaahi di si jàpp quoi kon man kon man munu ma leen fay munu ma fay quoi maa leen sant bu baax billaahi wallaahi maa ngi sant waa kolobaan waa waay Géejawaay seen ba ñàgg Kër Massar di sant sama benn gaan Demba sa Demba Saraxule jiili kooku dafa may doole commerçant bu mag la Dakar waaw mais dafa may doole Saraxule la mais dafa maa bëgg barke yonent yàlla Muhammad maa ngi koy sand bu baax waa di sand sama gars yi nekk foofu yëpp ki si mel ni ñoom Birima ñoom Mod Lama waa di bëggee ñoom Babsi VIP xam nga ay ñoom Cheikh Thiaw xam ñoom Pape Thiaw ñoom Grand Ndiaye. waaw di sant sama booy yëpp ñoom Ameth Lo Paa Omar Cheikh Baye Ma Ndione ñoom sàmba ñoom Ndour Mbaw maa ngi sant ñëpp jili maa ngi sant sama booy bi matériel bu saal moom tamit dama bëgg nga jox ko mu wax ndax moom borom baax la Baye Fall kaay al noo def waaw sant yàlla gaay man ala lañ may wax waaw hmm. waaw ala ma ñëw fekk la place Mbaye seen diggante la la non Mbaye Tine Mbaye sama sama ju baax la Mbaye Tine man mun naa na lu muy dund lu muy lu may wax sax du ko wax ay magam yi mu bokkal ndey ak baay moom lu muy dugg si lu ne daf may woo dama ala maa ngi dugg si lii maa ngi dugg si lii ma xool lu rafet ma wax li kay jëmale kanam man ba may ànd ak moom moom booy bu ndaw la quoi mu taq ma yàlla boole ñu. yenn saa dañuy xuloo ba nit nii mais suñu xulooyee tey su guddee mu woo ma téléphone na ma sama garaanga ñoo for nii ak nii mais lii moom gaynde la jàmbaar la quoi barki Seydina am xam ne liggéeykat la chaque jour su ma naan ko bu baax bul booleeg làmb jëg liggéey ndax affaire yi moom kenn xamul fan la quoi bul bàyyi làmb mais tam bul bàyyi liggéey te moom moo ngi si boobu ba léegi du dugg si lu ma yëgul quoi lii dina am lu ëpp lu kawe njottam ndax gëm gëm na boppam te bañkat la ko quoi barki Serigne Bamba daf maa woo téléphone na ma ñëwal sama place chaque jour mu woo moo tax ma bàyyi sama place ñëw xool si lu mu nekk quoi mais borom baax la sama raq ju baax la billaahi wallaahi mook sama raq ñooy ànd mais lu muy dugg lu ne day ñëw woo ma na ma ala li wëg li li li ma xam barke Seydina Mohamed maa ngi koy ñaanal place bi doon ay magasin magasin man moom bàyyi naa jënd fépp yére moom xam na sama jikko rek sama xol day sot billaay wallaahi dootuma so jëndati fenn yére barke Seydina Mohamed. kilifa gi tur bi. man ndaamal lan may wax Baye Fall ñoo ngi siyaar. mais yow ndaama woo de. non mais ndaamal daaru maam Thierno nag monsieur Daaru Muxtu ndeysaan waaw noonu la demee ñu ngi siyaar bu baax a baax a baax. oui alhamdulilah ñu ngi siyaar bu baax waaw ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. Euh, tey ma ñëw fekk la ci place Mbaye Tine seen la. waaw noonu la demee mënul ñàkk xam nga Mbaye Tine ndeysaan dama fi jaar léegi nii di dem mu ne man daa ma xaaral dama am émission bu ma war a def ma bàyyi lépp lu may def toog di xaar su doon fi ma jëm dama fay jëlee lu dul jeex sax moom jàllal na ma loolu. parce que Mbaye Tine man bu ma koy xam loolu yàgg na boobu mu ngi nekk tout temps ma koy xool naan ko booyoo dama lay xoolee comme Modou Lo quoi parce que nekk xale teel os quoi ndeysaan moo xamee woon ko sama benn gaan Zé quoi maa ngi koy nuyu de passage mu ngi correct man sama xel day dal ci moom parce que li tax sama xel di dal ci moom mooy place bi da koo jël ci lendemain bi ma ñëw fekk fi papaam mu présenté ma ko barki yonenti yàlla Mouhamed bi papaam waxee ba pare sama yaram dafa daw man damaa gën a fan gën koo bëgg parce que papam dafa ne ma dama ne ko père defal ñu ñaan mu ne ma kii moo ñaanal boppam ndax bëggul ma jàmbat dara si àdduna lu ma mës a bëgg ci àdduna booy bi taxaw na ci ma ne ko père ñaanal ko mu dem bay dem ay voyage Chine ay Turquie fu ne ci àdduna di jëli baga di ñëw mu ne ma wallaahi day am mu ne ma kii xanaa mu bañ a bëgg mais lépp lu mu bëgg ci kàttanu yàlla day am sama yaram daw barki yonenti yàlla Muhammad ma toog affaire bi marqué ma quoi ma xam ne lu nit am ci àdduna te amoo say ñaanu waajur rek amoo dara quoi barki yonenti bi ma koy ñaanal fan bu gudd ak wér ndax doomu ñay la te doomu ñay kenn du ko ñaanal rëy da nga koy ñaanal gudd fan barki yonent bi mu nekk ko am ambition am vision bu sori nag waaw parce que dafa bëgg dara xam nga li li wax naan dëkk ci dëkk màggee ci dëkk tekkee ci dëkk moo ko gën ndax mën nga dëkk ci dëkk màggee ci dëkk te tekki woo dara jañunoo dara wala nga doon alal borom barke wala dara mais bi muy dugg dakaar dafa gëm boppam am lu mu fa demoon pour jëli ji ko fa te bi mu demee ba yàlla dofal ko ay tawféex mu am xam-xam am loo xamante ni suñu borom dogal na mu nekk ci poosam dafa ñëw ba fi mu dëkk suñ borom dogal mu am fa ay tawféex lu mel ne place bii nii ak yeneen ak yeneen yi mu lay wax yoo xamante ne nii amaana bii moo feeñ mais yooyu noonu amaana tamit yeneen la yoo xamante ne nii xam nga du lépp lañ mën a wax mais liñ koy defal daal mooy dañ koy ñaanal yàlla defal ko ay tawféex defal ko ay xéewal làmb ji nga xamante ne bëgg na ko lépp lu ci bëgg mu mu mu doon ko ci quoi ba pare di ñaax tamit moroom mu mbërëm yi pour ñu xam ne y a pas quoi ma koy joxe exemplaire si jàllu picc ay picc la doon jaay milliardaire la si nekk ñu dem ba koy def ay soleil te pourtant Guinée la woon ñëw Sénégal fii nii nit lépp loo mënti def rek su yàggee rek suñu borom day fay coono parce que yàlla mën na la seetaan muy xaw a dëgër nii mais boo sonnee bëgg rek mu defal la ay tawféex ndax bañ boo gis si benn lay dooree petit à petit l'oiseau fait son nid da ngay doon xale ndànk-ndànk ngay màgg di màgg di màgg ba au chemin kon yàlla na yàlla def jàmm yéen tamit li ngeen def parce que déplacement ak dérangement yombul te bëgg yëg koy fay tey jii bu la neexoon mu woo nga ne ah booy bi ni dafa yabaate wala benn affaire te naa ci làmb la nekk donte xam nañ ko eggagul fu la deger wala bala gay 2 yegg bu la neexoon nga ne dew ma mais yow tamit dan lay ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram say waajur luñ yaakaar ci yow seen yaakaar bañ a tas quoi loolu daal laa amoon lu may wax di ko gën a ñaax di ko gën a ñaanal di ko wax mu ngi door tàmbali te wàññi boo gis si benn lay dooree te te te maanaam yoon yoon yoon bu baax yombul quoi. day bëri ay pakk-pakk bëri ay gàllankoor bëri lu nekk waaye chaque jour rek yow jaayanteel rek te xam ne dafa am loolu tax a jóg barki yonent bi man moom sama xel dal na ci moom ndax waajuram da koo ñaanal ma taxaw te man du ma waxantu rus naa wax loo xam du dëgg bu subaa nit ñi ba xool xam ne lii du dëgg bu subaa ma romb ñu ne kii nii day wax waxkatu lu dul dëgg la dama am kersa boobu ndax Baye Fall laa te damaa li ma doon. jaaraama borom champion waaw borom Daaru Almadi. jaajëf <laughs>